day defar mbool ku mel ne ndëri mii kon nañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal lépp lu ci bëgg rek yàlla na ko suñu borom ko mu fayal ndax comme li ma wax tout temps rek mu jàppee wala su baax bu bu naqari ku mel ne bas la sama ne dama xamul ko macha allah ñu ñëw nga xamante ne mooy sa diggante ak Mama Lamine dinañ ñëw ci combat bi nga xamante ne foofu nga jóge yoon yi gars yi ne bokk na ñu ne bokkul góor a préparé ki nga xamante ne mooy Mama Lamine mu njëkk a yàqu maanaam wàccaay bu njëkk bi mu nekkoon loo xam ne lu métti la wala lu méttiwul ndax gars yi ne nañ combat bu xasee yàqu rek day métti ci mbër mi man damay sant yàlla ci côté boobu quoi am na mbokk yoo xam dañ may jàppale ku mel ne Abdou Ndiaye sama rakk. maanaam da nga am ginnaaw am naa ñu ma jàppale ku mel ne Galas Dieng mi toog. Nderi Dieng mii toog. Osoy laay Bas laay. Aada Jokkel mi Sóora. bëbbee patron moomu fayam lépp lu mu bëgg rek yàlla na suñu borom gën a yokk. ñooñu ñëpp dañ may jàppale ku mel ne Youssou Ndoye. lutax nga jël Maama Lamine dafa am fo nekkoon nga bëgg fa wat da nga bëggal woné sa bop ci Maama Lamine da nga ñëw bëgg jëlat sa place lan moo tax nga jël Maama Lamine wala nga bañoon na toog année blanche lan moo tax nga jël ko lolo bo lekk moom wala xaalis la. ndax ñoom seexu naa Abdou ndjay ñoom ara jokk ni ma jël ma jël mais man comme ma wax amna na mo lu war jël Maama Lamine Maama Lamine champion la. doon na man 8 ans wala 9 ans daanu mais lolu dara. mais comme lu may wax tout le temps ci làmb ji nag toog naa huit ans wala neuf ans daanu ma nag bu nga diir bu nga am solo am na mbër yu dégg ñoo am na 10 combats de victoire non damay wax dëgg de mënu si génn ñetti mbër yu baax ah bon ñaata mbër ñoo ne am nañ 9 combats de victoire pourtant ay champion la daal non non moo waxum maam maam mais dama ne la mais ñam daan ak yow maanaam nga bëgg wax ne du benn bi ma ko bi ma laalee yaram bi xam ne bokkuñ non xam na ni maanaam li ma ko waxoon jógu ma ci ci pexe la nekk ma père Massi Mbarga maa ngi nuyu au passage wala am na ma jógee dégg combat bi loo xam gaañu gaañu boo xam man daaw ma sar sax sama tànk daaw ma def dara ma contact ah rek bëgg comme li bëgg naa bëre bëgg naa fayu te li nekkat moo ma daan dama gëmoon di fils de ko mën foofu même su ma yoree benn beeg dama ko dàq maa ko mën. mais a pare. damaa wér ma dama pare. bii dama waaj nga xam boo wéree boo wérul bokkul mais nag loolu ci sportif yëpp ci àdduna la ñuy basket ñuy football ñuy judo di jël benn compétition boo xam te ne bii même championnat moo am compétition yoo xam ne day boobu dañuy nekk best forme mm. waaw loolu day sportif. ayca combat bi taxaw ñëpp ne Gora Sock moo gën a pare Mama Lamine. Mm. Gora Sock moo gën a nekk ci combat bi. Mm-hmm. Euh, combat bi donte yàqu woon na dafa mel ni mosoo dellu ginnaaw mosoo bàyyi. Euh, mun naa ne combat bi bokk na ci combat yi nga jël mhm. nga soog a dégg favori ah. wala ban combat nga mës a dégg favori à bi bii moom ñëpp yow lañ jox favori yëngaloo waaw maag Fils de Balla sax favori la naa ma daan mais maa nekkat favori de hmm. waaw Fils de Balla nekkoon moo bii gën a lii waaw bii moo bii moo gën a nekk favori ndax bii moo gën a favori mooy ñoom xam nañ fi ma jaar bëre bi muy bëre Cobra fii hmm. kenn mënu ko daan fii bi muy jëm ceeri jëm ceeri ko mën daan bëriwul te sept secondes may bëri mobile de dafa të may bëri ma Paul may bëri santañi may bëri Baye Mandione mii xam nga su ma déggee mbëri di lim man ay ree lañ may def <laughs> Jokal waaw turandoo aada ñun ñëpp am na te Jokal moo koy daan Iba Mar da koo teewoon daal ñoom ñàkk ja ñëpp ma jàpp ko mënu sa une minute mais yooyu yëpp du dara gis na sport yaa xam yaay kan yaa xam ban qualité nga te man xam naa sama bopp te xam naa ñi may contactal kenn ku ne doole ci làmb te loolu boo ko amee sant la waaw léegi ñu ñëw ci bëre bi sa diggante ak Mama Lamine bi arbitre sifflé ñu ngi doon xaar xeex bu sax dàq. ci signature bi nee nga ko ci ay pexe nga ne. waaw d'accord léegi xeex bi yaa ko tëj wala moo ko tëj bi arbitre sifflé loolu. voilà ma déclaré moom xeex ma déclaré moom xeex. Ah, xam nga ko ci. ah xam naa ko mu dóor mu dóor mu dóor droite. Ah. moom jëli ko bi ma ko jëlee dafa yaa na ma koy paqueté. ma doon ma rëpp sama benn petit oom. pour mu mun yaa damay jël maanaam tànk pour mu rasu ma daa daa ko placage. rëpp bi rëpp bi foo ko ne bu la ñemewoon dëgg du am dara ci yow. non rëpp bi waaw su ma rëppoon mënu ma ko jot foofu foofu saako kon day jéggi saako yi il faut ma rëpp ko fere dama fekk ma jàpp su ma ñemewoon. day am foofu. su ma ñemewoon. dañuy commentaire voilà ñoom ñoo xam mais man moom gisuma damaa ragal. yow lii moo tax ma rëpp. non li ma ko dama ko bañ a dàq jéeg ak paquetage deuxième pied ma ne ma rëpp pour moom mu freiné. ne bi mu freiné gisoo ma laal ko placage. Mhm. kele yi ma def ñetti kele yi ma ko def benn motu ci seconde ñetti kele yi moo ko joxee bi ma ko dóoree dama ko gën a ñoo ko pour mu fayu. mu fay ma jiw moom jëlee ko bi mu ma jàpp ci géej gi muy sax ma dóor ko plaquage. xam nga li gis may plaqué mbër bëriwul sax. mais dama kii ma ko plaqué mu daanu. léegi bi nga ko gis nga ne doole feeñ na ko jàppee noonu war ko plaqué. am na doole rek. am na doole moom fu mu toll ak man doole ndax man lamsaar moom rek li ma wax jóguñu amul na nag mbër yu ma am na fa si taa ma raw mais nag mbër mopp doole mu fa de. maanaam yow boo ci làmb rek. li jafe-jafe de damay entraînement comme daf. Hmm. damay contact comme daf. damay bëri ci géew. man xaw ma sax bëri mbër yi def nii di négocier ay da ngay moytu a xeex dafa man nii man bu ne la nga mën dara ci laa na a mën a bëri yow <laughs> cobra jamono bi naan dafa mën a xeex ni gis bi arbitre suuf bi ma ak jëm mm. ceer yi mbëri yi wala dañuy sóob ni ñu ñëpp a ci yem mais ñun xeex moom moo moom moo war a xeex mais man maa war a bëri ndax maa ko dàq tey xeex la gars yi doon xeex bu sax dàq nu moom benn góos rek laa ko ah. te maam moo tax sama bëri moom ni naa bëri moom sax bëri bëri temps mais bi mu jël combat daa nu wax ma dégg ko écho yi. lan la wax wala loolu garaaw. dani pour ma nekk champion foo ma daan ku mel ne Gora Sock. waaw champion balaa nga doon champion ngay daan champion affaire yi dafa ak sama noppi. mu ne mu ne Gora Sock a nooy. man <laughs> ma bëri moom ci une minute daan ko xam ne man maa ko mën xam tey ba bëri nit 4 minutes 5 minutes ba léegi mën a googu. mais làmb nag bu taxawee. ku nekk da ngay def wax. non avant avant combat bi avant Ibrahima di taxal combat moo woo benn promoteur. wax ko waaw. kooku nettaliwaat la ko. Eh, loolu moo tax jël bi comme man ko jël de bi mu ma ne soo laa jël xaalis bi ndeke man damaa nooy kay loolu bëgg a xam. ah pataas la la foogoo. waaw kañ. te <laughs> ama ma bëreeg moom ci noonu rek xam nga ni doo ko mënee exemple quoi wax nekk daan naa la mi waa yaa ko. waaw même bu ñu naa ko daan maa ngi koy nag su bëree wala parcelle yàlla na ko yàlla may ndam mais parcelle fi mu fi bëree yàlla na ko parcelle daan. waaw ah, kay bay mënul sax mbër buy bëree waa ah. parcelle ah. léegi nag maama day dellu yow euh, góor a day dellu ba tey jàmm gën wala avancé fu mu jógee rek bu say mbokk d'accord yi nga jël wala ba tey siis bi dañ koy deg biir jàmm gën moom su ma fa amoon adversaire dama fay dellu waaw kan nga visé foofu jàmm gën moo fa adversaire mo la benn tarki ndaa ma nga nekk si si dafa am combat te ma raw nangu naa ne ma raw mais bu ñu demee tuuti naa ko allah. te yàggu loolu yàggu sax nañ ma joxaat combat ñaari combat nii rek ma réglé ko ak kuñ a indi nag. d'accord waaw. dafa am xam ma la koy posé. concerné na daf feer man dama mental bu baax ba pare ma dama jaar équipe nationale daf lu nekk jël ndef leen jël lamb bu nekk daan façon mbër bu nekk man tey su ma daanoo ci laa dàq bëri bu subaa mooy bëri si non booy toog di dégloo kii du mbër xamoo dara waaw ah. yambar la ah. te fekk yambar boobu dañ ko doon topp ah. yambar boobu indi na ndam bu ne xam xam loolu la ma koy indi gars yi mel na yéen jër seen site internet bëgg seen am mais nit ku nekk bu tëddee ci bopp la am tëdd kay da nga xam ne kii góor la man waxuma la man de famille bi ma bokk amul ragal samay maam ba léegi nag sama famille pap ak sama famille yaay li leer naa la wax. d' accord yow ban combat nga gën a xeex nga sentir na yow tey bëre naa xeex naa ci sa combat yi ban la. ay ñaar round dem na ñaari xeex ba hmm. ah. mais après a soog du xeex góor a soog ay coups. te mbër mu mën a bëre bu ñu bëree ma bu ko mën a xeex dama lay dox sa kaw du ma la daan jëm ci rek mënul xeex Cobra mënul xeex Mama Lamine mënul xeex. Hmm. ah Baye Mandione mënul xeex yooyu seen kaw laa dox di tapet mooy lan. Ah, mobilisation bu doy waar. gars yi nee nañ dix car nga gaare. bolo bi dix car. ah waaw tey mobilisation bi dafa doy waar ak ci li nga jóge woon sa diggante ak say supporters lan la. jàmm bu ñu dem bu ñu amee dëj ma dem ku xewle ci koñ ma dem man fi jóg fi laay man déggoo ma Cambérène bi ma dëkk nii ak mbooloo ma dama am base base moom maa ko liggéey xam nga tey mbër bu jógee ci defet gars yi du leen topp. gisoo lu ma topp. mais bëriwul bëri yu jóge si défaite ñu leen topp. waaw bëriwul bëriwul waaw bëriwul man su ma jógoon si ñetti défaite dama ñëw may bëri si. xam nga damay bëri si waaw xam nga damay topp dama siq ak ñoom loolu. défaite du dara sportif amul benn sport boo boo ñuy pratiquer te doo am défaite mais nag boo amee défaite yow compétiteur bi yow yaay xam sa bopp xam li la war ak li nga war def ak li lay may ndam pël. nga xam ne waaw mais man fii Cambérène daa ma ñaata bolok bii la gars yi jël. 10 bolok. gisoo stade ci kaw ba suuf. waaw stade bi kay tey moom macha allah. dix bolok la gars jël ñi tok fi ngay gis ñëpp seen alal dafa dem ci man. mais si signat bi doon wax ne ko ya ko dak beure ya ko ëpp supporter. wa ah am na feeñ maa ko wala ko dak beure len rek la ma dàq. lan la dak moma dak sabar mi mako dak juk sax mais nag moma dak sabar mi waaw moom dak dak dàq fecc waaw ah, sabar sabar sabaru waaw ah, mais dàq ma fecc sant dak ko fecc sant ah. benn jug bi rek la man sant tàng te lolou juk si sant sax lolou beesuñ fi indi la. waaw mais nag moom maa ko ëpp supporter mu juguma ci maa ko dàq bëri maa ko ëpp doole lépp lu ma ko waxan ci combat bi indi naa ko maa ko ëpp supporter maa dàq bëri maa ko ëpp doole hmm. waaw bi bi jeexee euh, jàppante sa doomu lay ngeen di jooy lan la woon mbégte la ah, waaw dafa ngeen doon dégg ah. ba tey ndam a jooy lan la sama nit su ma daanoo ci combat day boobu sax lay gën a ànd ak nekk ak man ndax xam na li ma koy jariñ moom xam naa li may jariñ xam na ñun seq ma ak moom te ñun ñaar ñooy mayante doole te dañoo nekk ay nit ñoo xam ne suñu ànd dafa yàgg te kenn mosu dégg histoire na ne ki may bëreel ne ko ñaay moroom. instant bi góor fu mu jëm fan nga jëm. damay bëri nag te bëri mooy sama mecc te li mu bëri yëpp am laa am naa doole mën naa bëri sama bëri dafa dafa yàgg am na ay supporter am bëri sax boobu mu supporter bu ko neexee naan ay naan ma jox nañ ma ñëw man Moussa Ndoye laay bëree la bëggee waxuma nag mu may ma changé ñaanu ma ko changé ci ñaari defet la toog gëj naa ndam toog na ñetti at bëriwul laa toog ba ma maa ngi indi sama mbooloo bu doy moom ñaar defet la toog ba pare gëj naa bëri kañ la gëj a bëri ca Sa Thiès Sa Thiès boobaag léegi 3 ans la mm-hmm. xaw ma 4 ans moom gëj naa bëri de guy gi nag moom su ma mënee may changé ma jël xam nga tamit may changé ah. mu def ci làmb bëri na quoi guy gi. waaw li mu def si làmb bëri na. guy gi daal ngay ñaan sens. mais Moussa Ndoye ñaanal ko sens. pour la may ñaan Moussa Ndoye sens. comme yaa ko bu doole. yaa ko bu mbooloo yaa ko dàq bëri loo koy ñaanal sens. war a bu ko supporter. ah yow xuleeku Moussa Ndoye ñeme nga ko. xuleeku xuleeku tàppet la xanaa mu ne. tàppet xanaa xam ne koo dégg ma mu naan dama damaa ñeme rek ab tàppet la. Ah ñeme du ay ay damaa ñeme wala dara. ay du ma ragal waaw ah, gisa mbër bala nga xam ne moo suuf la ci digënde mo am moroomam. d'accord légui guuy gi mom nañ ko ñaan sans Moussa Ndoy bu bëggee bëré mu ñëw ngeen bëré ak kan wala bok ak ñan. ñeneen dañoo am combat dañu bëré mënuma top ci ñom di wax mo tax may dégg yéen saa mbëri naan ay daan na diiw daan na diiw ma ma doon damay kalki nak ci ñuma daan non su may non samay drapeau yi ma jël ci lam fi xajul fi sal bi. ci mbapat. ma sax ma sama mbapatu séeréer ak yooyu parcelle fii toog naa fi ñetti at yoo xam chaque dimanche damay bëré mbër mu daan parcel parcelle géejewaay yoof wakaam ngor amul mbër ma bëree na hmm. waaw. instant bi victoire yi ñaata la. instant bi treize xaw ma quatorze yaakaar naa loolu ndax man naa trois combats ay recours la ak combat ma daanoo ci fils de Balla wax naa la coono dafa bari ci làmb ji. Hmm. mais làmb ji amaat tamit ma daanu. même su ma soo soo ñëwee bëri maa comme taajeen de hmm. ma wax ci combat yi ma jàll lu jàll lu ma si waxaat man maa ngi sama kanam mais day am ñu naan góor a soog ci kaw rek lay liggéey du liggéey suuf gi yaa ko bëggee noonu. bind la wala say course ñoo lay entraîné noonu. man noonu laa bindoo kon ndegam loolu la gaa yi wax. Hmm. ah ci kaw laay ci kaw laay liggéey te ma dalee sa kaw danga daanu. Ah ñoom duñu kon seen suuf yi. mais dañoo war a ngay gaaw a rëpp tamit. loolu sa sa loolu sa mani la rëpp bi. mais bëre mooy bëre. bëri may bëri attaque damay attaque moo tax yi dund rëppe dañuy taxaw sur place ni jonn mbër bu attaque nooy rëppe mbër gem nooy rëppe mbër dem suuf man damay bëri ci kaw suuf mbër yi ngeen jëm ci kaw rek la ñuy bëri xaaj bi ponkal yi nag ponkal yi waxuma nag poids mais ponkal yi mesure ponkal yi koo ci gis lay def jàpp géño man ah. damay dóor naax jàpp géño pare damay attaque song te man amu pied bu ñuy song gauche droite su ma songantay nga rëcc sa ndigg laay laxasu su ma song suma songa tay nga sen digg la la ko ni la ko ci baami ma joon ne do ko bàyyi waaw suma songa tay nga hmm. sa gaño la japp dur la nax xama mhm. bëre yombul tay comme da ngay dégg sen ñaan diw dafa mëna dafa mëna a so man 50 kilo ñetti kilo yu baax mo gën ñetti kilo yu baax mhm. mo gën comme 50 kilo yo xam du ko neexee da koy def ni rek mhm. waaw euh, tay bu bi yeso sa carrière ban combat mo la ci gëna neex man combat bu ma neex victoire yeb mais nag wax dëgg si yàlla ku ceer neex na ma quoi. lan moo tax. damaa jël avance bi ñu bëri na ma ne tax nga koy jël ndax boobu am na eh, jamono ban tàmbaab ñu doon doon ndës ndës mooy affaire yooyu di indi bruit yi. xam naa booy dafa ñu ko seetaan rek nan kooku day dóore de. ma ne kooku nii la toll ngeen ne damay day dóore waaw man man yooyu jaaxal ma ma ma wax ni ko man yooyu jaaxal ma ne ko ma ne ko ñoom Malal Ndiaye gis ngeen duñ toll. Mm-hmm. te chaque dimanche dama leen daan waaw mm-hmm. ah. Malal Ndiaye bi muy tëx chaque fois a doon daan. te kooku champion la maa ngi ko nuyu au ma ko noo man jël kii mu ma jaar ma jaay ko doole. mu jël combat bi combat bi sax nekkul maag maag maag jëm ceeri sama combat jëm ma jël jëm ceeri. ah mbokk dafa feeñoo. non du mbokk sax Ablaye Ndiaye moom léegi boobu nekkul ñaari gars léegi lañ nekk ay waay rek maa ngi ñaanal la combat bi mu jëm suñu borom may ko ndam quoi ko jaale waajurum jigéen boobu génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm taxari ko àjjana waaw ndax magam sama xarit la Mamadou Ndiaye. waaw te Mamadou maa ngi koy ñaanal ak soxnaam yal na yàlla gën a yokk taxawaayam ak mën-mënam nit ku baax la quoi. Mamadou Ndiaye. Uh-huh. gars yi dañuy léegi arabe yi sax. waaw jullit loolu lay ñaan yàlla nit nit dafa war ñaan yàlla nekkul jullit xam nga tey doomu aadama comme ni ma wax tout le temps rek. comme maa ngi dégg na jullit dina ne góor arabe yi sax. waaw xam nga gars yi dañuy wax noonu. comme comme. Ah, <laughs> wala yéen moom la ñu wax. xamante ne àdduna wax rek soo nekkee xale yow doo def lu dul reer nekk ci mbedd mi taxawaalu tëddi mais léegi boo nekkee mag nga xam li nga waroo suñu borom xam ne waroo say waajur xam ne nga waroo say dëkkandoo xam ne waroo ñi la mag ak say morom mais il faut nga nekk si ndax bu àdduna moom dund gi yàggul li ñu def nii léegi ñun ñëpp a ci yam tey su ma ko defaatee 15 ans Ah kane nay ñëw non day doy wax xool la neen comme boo ñëwee day rafetal ah. rafetal bi nag mu moom ci géew bu bëre moom ah. rafetal moom yam na ci nuyoo bi mbedd arabisant rek de nee hmm. a léegi arabisant la nee na mystique bi moom léegi mooy loolu mystique bi laa ko indi de naa ko de indi dalay soj dalay ak ñoom aada jokkeel ñoo koy indi ak ñoom suura mais dalay sojloo xam nga bëre bi moom ak ñoom Abdou Ndiaye dalay sojloo rek na xam nga comme lu rek dee dem fenn di indi butéel rek da ngay xam ne da ngay bi nga xam ne yéen ko seq te nit moom kon ma rek comme Abdou Ndiaye sama rek mais xam moom day bëgg chaque jour nga nekk ci butéel ak affaire yi danaan la mbër moom soo bëggulee bàyyi làmb ak mystique ñoo ah. ànd ñàkk doon bàyyi ñàkk sëriñ doon bàyyi waaw loolu de yi ki ndeg yi ñooñu gars yi bàyyi bàyyi nañ de non xam nga maa ngi sax ñëpp uh-huh. du nuyu waa Sakal di teg nuyoo bi ci Ousmane Fida ak Jibi Gaye maa ngi sant waa Sakal yëpp. di sant waa déglu ma di sant sant sama pël ba la Bayel Sow aw ma fayam bañ dalee ànd yàgg na muy bëri mbapat ba léegi aw ma fayam quoi te nuyu nag njabootu maam Serigne Fall gi yëpp di teg ko nuyoo bi teg ko sama sëriñ seen Seex Cokki da koy ñaanal yal na yàlla guddal fanam ba mu ci xale xilaafa maam Seera Fall incha allah maa ngi ko koy ñaanal na moom nit ku baax la quoi. di sant Mboor Mboor fu mu nekk di sant sama yaay di ñaanal sama yaay Ndeye Dieng sama yaay Rémy sama yaay Ruba yal nañu yàlla xare àjjana suuf sedd ci nga barki yonent bi ñoo ñu doon ci man lañ te yàlla jëlee nañu fi quoi di sant nag sama rakk yëpp ak sama doom baay fu sama doom baay nekk maa ngi sant. di ñaan sama papa sama waajuru góor dafa xaw a jagadi yàlla na ko yàlla fëgg boppam ci barke yonent bi quoi mm, ndax man moom amul samay waajur loolu man di waxal moom te waxuma samay waajur rek mënoo wax dara quoi maay sant bu baax di julliwaat ci yonent bi di santaat samay waajur bu baax a baax di sant nag mbalka maag liy coor sama mag la Edouard dim la jox uh-huh. maa ngi sant samay nit la ñoo xam samay mag la ñoo xam sonn ci di sant Mansour Ba ak maam père ba président écrit bi di sant waa jàmbaar yëpp ak bépp mbër bu nekk parcelle maa lay sant di sant ndëri ponkal mais di ko ñaanal rek ci li ma wax nii incha allah